aminatu du doon ndeyam mbaa bu ami doonee ndeyam seexul xaddim du waajuram te du am ngor gi nga am ji jagle rekk a ko am aminatoo jur Mustapha amintaloo jur mi tafa kon mee tafa may mi tafa li tax mu sangaay kemam madina geeg taayif gële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 moom ni ko waxee ca Mbàkke Kajoor sama jaayante ak borom Tuubaa di ko liggéeyal guddi ak bëccëg boole wu ko ak dara teg tànkam ci siraatul ñu wax ne firndeel ji rek mooy bayit yi nga xam ne bind nañ ci xasida gi mu doon tagge borom Tuubaa di ca wax ne lillaahi <coughs> lillaahi qad zurtuhu laa gayruhu arabi is laysa is laysa zinati hindin bi xawajaati wa himmati shukru rabbi la sharika lahu jalla lahu al ardu ka samawaati ba mu jaax ci tënk rek mu wax ne man sëriñ Assane maa ngi ziyaare borom Tuuba ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala rek sàkkuwuma lu ko may ndax taarub àdduna du sama yitte li sama yitte mooy cantuk sama borom mi nga xam ne amul bokkaale màgg na mooy borom suufi ak asamaan yi ndax moom sama borom moom bu màgg moom mi ngi may jox ay xéewal ak i teraanga di suturaal sama ayib ci wépp waxtu ba mu jeex kon day firndeel rek sori goo xam ne ni sori woon na ko ci borom waaye tawxiid bi xam ne amoon na ko xasida la goo xam ne ni Aba Ali xamar na doon toll ci ñaar fukki bayit ak ñett xasida gi aussi am nañ ko fii ba mat sëkk waaye affiché wuñ lépp ci tableau yi ku ko bëgg itam mën na ko jox incha allah loolu yëpp day firndeel rek ne euh, sëñ Daaru ak sëñ Tuubaa ñu jaxasoo woon lañ ndax bayit yi itam sëriñ bi moo ko bindoon tontu ko ko ne ko jazaaka rabbuka fi daarayni yaa xasanu xayran bi jaahi allazi min najlihi lxasanu xata tahwiza allazi tarjuhu wa taamuluhu bi ba mu jeex ci tënk daal sëriñ Tuubaa ne ko yow sëñ Daaru Xasan yàlla na sa borom fay aw yiw ci àdduna ak alaxira ci daraja yi ka nga xam ne ay sëtam ku ñuy wax alasan bokk na te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga am lépp li ngay yaakaar te di ko mébét ci sa borom subhanahu wa taala na nga xam ne yow asan man borom Tuubaa ku la gërëm laa te di la sàkkul ak texe gu matale ak i daraja yu kawe eh, bu jógee ci suñu borom tabaraka wa taala ñëw ci yow kon nag bul jóg mukk ci daragal yàlla gi nga xam ne moom laa la xamee woon akum njub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 kilifa yoon wi di Cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu kilifa kër gi di sëriñ Ahmadul Muxtaar di nuyu jëwriñu kër sëriñ Daaru Xasan yépp di sëriñ Abdul Xaadir di leen ñaanal suñu borom tabaraka taala yàlla mu jàpp na leen di dëgëral leen te li ngeen yéene liggéeyal seen diwaan def ci lu kawe seen dara lu leen mag ñu bàyyee ngeen di ko sàmm yàlla bu ci dara suuf am na suñu borom àggale fu raw fa ko mag ñi doon lébat barakat Cheikh Xadim ñooy jot li nuyoo sëñ Ousmane ak sëriñ Basiiru moom sëriñ Saliou ak Cheikh Abdoul Ahad moom sëriñ Aliou ak mboolem bokki taalibe yi nekk ci biir yëpp di leeral rek ci kàddu yu gàtt li tax nu def liggéey bi liggéey bi daa bokk ci wàccaayu màggal gi waaye ab liggéey la boo xamante ne nii ñu bëgg ngeen xam ni ñenn ci seenu njaboot ñoo ko def te jubluwaay bi mooy liggéeyal ci yàlla liggéey Sëñ Tuubaa wut ci itam ngërëma te dara waralu ko lu dul jamono daa toll foo xamante nii ñun ñëpp xam nañ ni jamono nax na ñun ñëpp xam na ni itam ni fii jamono àgg ci jikko yu yàqu yi fii jamono àgg ci yitte yu suufe yi fii jamono àgg ci nit ñi dëgmal guñ dëgmal àdduna fii jamono àgg ci bëgg gu nit ñi bëgg matériel yéeme noonu nu jàpp ne nag solution mën naa am waaye solution bi mooy dellu gannaaw seeti sun mag ñi nga xamante ne ni liggéey bi ñoo ko indi fii nu waxtaani seeni jikko waxtaani seeni melokaan waxtaani seeni taxawaay ndax yàlla gone yi man cee jànge mag ñi itam man cee fàttalikoo moo tax nu tànn jëmm ji nga xamante ne ni kenn la ci yoon wi kenn la ci ñooñ lislaam kenn la ci ñooñ kër gi di borom yi taxawaay yoo xamante ne ni fa tabarakallah ci sant yàlla bu baax a baax bi nu sun borom defee nu di njabootam moo tax ñu tànn ko tey jii ngir waxtaane ko mu mel ni buñ jëloon kenn ci ñim jaboote dana doy sëkk kon bu doon ëpp nañu wax ni ëpp na liñ jël ndax kenn ci njabootam rek doy na sëkk référence bu dul loole itam kër gi nga xamante ni dañ koo séq ak yenn ngeen bokk ci jëwriñu kër gi gis na ni itam kër gi nim leen ñore taxawaay yi ngeen ci taxaw ci sagal kër gi taxawaay yi ngeen taxaw ci suturaal kër gi jeexal gi ngeen jeexal seeni doole bëcc guddi ak bëccëg te woon leen ci dara lu sàmm ormay Sëñ Tuubaa ji ak ndonal seen Muusaa li mu ci bàyyi te loolu di lu jafe loo xam ne ñun ñëpp maasa nañ xam ne du lu yomb waaye ñu gis yitte ji ngeen ko jox ak taxawaay bi ngeen ci ñu gis itam santaane yi nga xamante ne ni moom la suñu borom santaane te taxoon mu wàcce nu ci kaw suuf yitte ji ngeen ko jox muy jaamu yàlla ak liggéey yar seeni cër soññ seenu xol mooy tandiku wépp ñaaw téew loolu kenn ku nekk ci ñun ñi ngeen bokkal kër gi mën nañ koo seere te fenn fu ne nangu nañ ko ñeme nañ ko faa benn ci seenu ànd ñu ngeen tax ko doon wenn say te mu wóor na ni mooy dëggalu suñu borom waxtasimu bi habli bi hablillahi jamian bu ca suñu borom yamoon képp mu doy waaye mu teg ci wala tafarraqu mooy xam ne ànd ñor na suñu borom te fedd li na te lu jafe la ci jamono ji ñu gis taxawaay bi ngeen ci taxaw mu doon ab exemple boo xam dañ ko war a wan adduna wan leen ni leen ànd mën naa am ndax ñii def nañ te mooy bëgg sëñ Tuubaa mooy bëggu sëñ Muusaa mi nga xamante ni mooy borom kër ànd bi itam di àndu nawlante kenn ku ci nekk la moroomam yor mu yéene te loolu nun ñi soo ci seen biir xam nañ ko bu baax a baax ndax loo ci sëg wax ko ni mën ndax wax ko diw loolu ma amul na te lu am solo te ca des itam mooy rafetal bi wax bu ci nekk ci mboolem ak ci kër si Moussa yëpp ngeen jàppe ko ne jëm ay cër cër bu ci nekk la war ci seen diggante ci rafetal ak sutural yéen a ngi seen kër de laay daal ndax toujours da mu jëm kan bu tëddee nga di ko bës teq ci baaram sànq lañ di ko màq matt matt ba lay gën a yëg ci la koy bës yéen a dara ci ko seen Moussa loolu ñëpp mën nañ leen ko seetlu diwaan bi itam gis nañ taxawaay bi ngeen taxaw te lépp rek sagar kër gi rek ngeen ko mu mel ne kër gi su fekkoon ak jur la bu doon am xar ci misaal su déggee seen baat dana bu doon am fas bu déggee seen baat dana ngay bu dul nit bi ñu nit itam yëpp na bu baax a baax a baax taxawaay bi yëpp taxaw loolu su xam ne mbir ngi jógee yëpp sëñ Ousmane bu baax a baax ndax la bal ki tànk naa ko bàyyi xel a baax te sëñ Moussa dafa wax ne ku la yemalewut ak kenn soo ko yemalewu ñëpp mu gën laa gore te wóor na ne sëñ Moussa moom yemalewu dara ndax coono bi ngeen ci sonn lépp jëmmam rek dafa yooyu taxoon na ñu ni woon nañ jël sëñ daaru ko dana tudd sëñ daaru waaye bu ñu tuddoon kenn ci njaboot gi dana dana doy sëkk ci ñuy teg ko exposé ndax lañ ca soxla rek ma nga ca te mooy ay jikko dafa am solo trop sëñ daaru nag duñ ci wax lu bari ndax liñ ci bëggoon a wax mi ngi ci tableau yi sëñ Cheikh Diop mi doon def présentation bi tudd na ko bu baax a baax tudd na ci lu bari li ci des tam mi ngi ci tableau yi te fii ba màggal bi jeex mi ngi waaye yàggaay jataay bi ak barab bi melokaan bi ni mu ni tax tàngoor bi tax na lu tënk suñu kàddu li ci des mooy sëñ daaru bi muy ñëw sëñ Tuubaa lu ko yëkkati yàlla képp ko yëkkati xat surtuhu lillahi laa xëy nga xam ne yàlla képp moo ko yëkkati waaye ki ki fekk si woon itam yàlla rek la ko woon tasal di tuqaa nga xam ne ñaar yooyu képp doy na ab joxoñ ci mboolem ñiy tuddoo sëñ ñu ñëpp ci ni nekkati loolu rek bu lañu war a wut sëñ Tuubaa waaye war nañ cee dégg ni ku am yàlla am adduna ndax sëñ Daaru adduna tax ko woon a jóg yàlla dong ko taxoon a jóg waaye ki mu àndaloon itam yàlla dong la ko war a law anna ahlal ardi amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatun mina sama mooy boo amee yàlla rek am adduna loolu moo taxoon ñu bëgg ndaw ñi xëppiwaat seen bët xoolaat bu baax a baax mag bi fi ñu teg seen tànk nu teg fa seen tànk topp seen mboom nu gis ni itam ni na la joo xamante ni moo leen ñëw jamonoon teel ci ëttu Sëriñ Tuubaa moom jëfu koy indi ak jikko naw nit jëf moo koy indi ak jikko mën nga bëgg nit te doo xam loo ko bëgg man ngaa topp nit ci doo xam loo ko topp mën ngaa ragal nit ci doo xam loo ko rage waaye naw moom ci jëf lañuy ñuy nawe ak jikko te ni sëñ Tuubaa doxaleen moom mooy li xamal ne sëñ bi nawoon na ko ci jikko nawoon na ko ci jëf bàyyi woon na ko xel bu baax a baax itam ci seen jaxasoo bàyyi woon na ko xel itam feeñ na ci mbindam te mag fu nekk ay waxam ak fa la loolu nag ak ab cër la boo xamante ne ni xaas la ju leen suñu borom defal cër boobu itam yéene nañ leen ko bu baax a baax te ñoo leen di ñaanal mu dolli ñoo ngi leen di ñaanal lépp loo xamante ne ni mag ñi doxal nañ ko ci biir yàlla na ko suñu borom sotti seen doom am nañ seetlu xol bu baax a baax ci seenu taxawaay mën nañ koo wane fu ne itam ndax buñ sañoon wax dëgg yàlla buñ sañoon mboolem këri seen tubaay yëpp def nii ndax wóor nañ ne bu ñëpp defee nii seen tubaay dana nu bëgg ndax bañ na ko ba ñaan bi yaa rabbi ij'alil muridina maa fi husnikal xasini wa samla ijmaa suñu borom maa ngi la ñaan nga booleel ma sama murid yépp ci genn buum te defal ma leen ci sa tàttalu ñoom bi nga xam xamante ni lu ci dugg ñoom kon bu ngeen àndee ànd bu rafet bi jàppootoon benn taxaw ci seen gannaaw kilifa te li leen fi mag ñi bàyyi loon di ko sàmm wax dëgg yàlla nun ñu doon seenu njaboot te tout tànk war na noo woo suñ yeneen morom yi ci def ci yeneen gox ñu leen kaay leen xool li nu am ndax fa suñu yéenee xool la ne amuñu soxla ci la ne xam nañ ni lii rek mooy dëgg ndax Sëñ Tuubaa da daan wax ni lépp loo xam ne ab saay-saay mën na koo am am ko du ngóor te gis nañu ab saay-saay mën naa am lu nay àdduna ba mu des ngërëmal yàlla te kii moom su borom dénk na ko ngërëm lu wér cëng loo xamante ni ñi mu àndaloon ñëpp xam nañu am na ngërëmal suñu borom xam nañu itam ni njaboot gi mu fi bàyyi nos boobee nosoon teg ko cooce rek lañ teg seen tànk loolu nag taw féex la yoo xamante ni yéen la ko suñu féexal waaye du tey nag noonu itam ci wet gi nekk ci yëngu di ci jàppale sëriñ nuy woo suñu yeneen morom yi dong yi ci des ci xamal leen ni leen fii bopp yi nekk mooy joxoñ bi te man naa am cooc yi itam dañuy yëg ni ku deful noona jàngoro moo nekk ci yow joo war a faj waaye noonu rek koy yoon ndax yaari dëgg mu mënta te dëgg gii moom la sëñ Tuubaa bëgg moo fi indi woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Moussa mii jëwriñu kër gi moom la bëgg te moom la doon dégg waaye dal wax ji mu gudd mu gàtt lii rek moo nu indi woon ci exposition bi jikko yi itam lañ doon visé ci sëñ daaru sëñ daaru sori na ci ñun waaye buñ tuddoon njaboot yi kenn dana doy waaye ñuy tudd sëñ daaru mi nga xam ne moo leen njaboote yéen xam nañ ne buñ laalee sëñ daaru laal nañ leen yéen ñëpp ndax moom mooy jëmm ji yéenay cër yi topp topp ci moom cër yi nag cër bu ne am na tur waaye teewul cër yi moom ci jëmm ji rek la te boo xasee laa jëmm ji ak loo ca lal lu tuut tuut rek laal ko jëm jëm lii daal mooy li ñu ci dugalal ndax daal jamono toll na foo xamante nit ñi ku wax ci yam waaye ñun ñëpp jaaxle te ñu bare bare am nañ tiitaange mooy wàll ñu dugg si ci yoon bi gone yi ni ñuy doxee ni ñuy jàpp sëriñ yi li ñuy jàpp xasida yi ni ñuy jàpp ak jaamu yàlla bu ñu ko woyee fale ak yitte ju soofe di ñu yor ak niñ ñu dawee dëgg man adduna loolu moom kenn ku ne xam na ne taxul woon sëriñ bi jóg te mag ñu newuñu woon foofu lii daal mooy kàddu yi nga xamante ne ni doggoon nañ koo wax ci ab tëj bu ko defee bu jox kàddu yi sëñ Ibrahima jëmm nga xamante ne nii moo yor baatu njaboot bi yu jóge ci bokk yi Daaru Njaay yëpp bëggee xamante ni mooy yi ñu ci ndigal lu waajuram sëñ daal ak mboolem mag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi mu wutu leen ci barab bi. bismillah inna waliyallah. assalaamu aleykum. noo ngi nuyu sëñ Ousmane. ñu fi teewal sëñ Ahmadou Moukhtar. ñu fi teewal sëñ Mountakha. ci ëtt bii di ëttu Cheikh Mamadou Moustapha. xam naa kàddu gi dañuy présenté ndax suñu bàyyi ma jëm moo ko yor. waaye kon ñuy xam ne bis bi mu ñëwee kër sëñ Daaru Asan ni mu leen fi leen toll moo tax sëñ bi ko ne nañ ko leeral ndax bi ñu fi ñëwee si Abdou Khadre jox ndigal mboolem rek yëpp ñëw teew ci jotaay bi mu yabal sëñ Moustapha moom sëñ Abdourahmane moom sëñ Daaru mu jiite ko ànd ak rakkam sëñ Ngonda moom sëñ Ousmane sëñ Jiili moom sëñ Mbay Falloo ak sëñ Ibrahima Jëmb moom sëñ Mbay Fallo ak sëñ Cheikh Mbakke moom sëñ Ousmane ak sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ Mamadou Ndiaye Assane ak sëñ Cheikh Xataw moom sëñ Mbay Fallo ak sëñ Mbakke Ndiaye moom sëñ Ousmane ñu ànd ak seeni doom it sëñ Fallu Ndiaye moom sëñ Abdou Doot ak sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ Mbakke Fatsila waaye ñu ànd ak seen rakk nag yoo xam ne mel nañ kenn desut waaye loolu dafa tënku na ci kuréel nga xam ne mooy lëkkale muy sëtal si ndawsat yi di daayira mel na ni bàyyi xalim mel na ci sëñ Cheikh Mbaye Fallou ak sëñ ak mbooleem ñi si daayira bi ñu teewloon waaye ñuy soññi mbooleem taalibe yi te buñ si jamaatu ahibaahi Cheikh mel nañ kenn desut sëñ Xadim Njaay imaam ànd nga ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo fekk biir Touba waaye ngir fonk bis bi sëñ bi jox ndigal kuréel yi nga xam ñoo nekk ci suñu dosan te tukkikat yi am si taxawaay bu am solo sëñ Jiili Jóob ak sëñ mu dama sëy teewal leen fi ak mboolem soxna yi nga xam ne ñoom lañu àndal di sët sëñ dosan ñu nekk ci biir jotaay bi kon loolu moo tënk jotaay nga xam ni moo teewaay ci suñu dosan loolu nag day wane rek ci suñu dosan bis bii fi mu leen ak ñi nga xam noonu leen ñëwee la sa aju si ay kàddu ay cant ak i ngërëm suñu bàyyi ma jëmb dana ko leer bu soobee yàlla kon loolu mooy kàddu yi ñu bëggoon leeral ngir sëñ bi yëg ni na mu yabal mboole ñu fi yabal ndax kër ndax ñi ko ŋànk mooy kilifa yi ak kuréel yi ñu tudd te ñenn ñu nekk bàyyi ma jëmb mbokki julli di mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala Sëriñ Ousmane Mbacké ñu ngi yëkkati ab nuyoo bu tedd bu ànd ak worma ak màggal ak kóolute waaye ànd ak fedd li ak njëbbal di ko teg ci sa loxo mu jóge ci sëñ Abdul Xaadir moom sëñ Daaru bi nga xam ne tey moo toog toogaayu sëñ Daaru Asan jaar ci sëñ Moustapha Fati nga xam ne mooy jëwriñ ñi kër waaye jaar ci sëñ Moustapha Diop bi nga xam ne sëñ Abdou Ndiaye tudd na ko léegi moo jiite mbooloo mi nga xam ne tey ñoo teew fii ci barab bi kon nuyoo boobu nag ñu ngi koy teg ci sa loxo ngir nga jàllale ko mu àgg ci sëñ Ahmadou li nga xam ne tey moo fi Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ñu di ko ñaanal bu baax a baax yàlla yàgg suñ kanam yàgg ci gannaawam te mu àggale ay mébétam ci lislaam àggale ko ci yoon bii di yoonu Cheikhna Ahmadul Khadim waaye àggale ko ci liggéeyal muy juróom Cheikh Mouhamadou Moustapha te yow mii nga xam ne daf laa doyloo ba dénk la liggéey bii nga xam ne tey moo woote woote bi moom lañ si di diiwaanul muridiin da nga xam ne xëy na yàggoon na bi mu juddoo ci kër gi waaye nag sëriñ Ahmadou mooy ki ko beesalaat xëy na lu toll ci fukki at walla lu ko ëpp ah, def la ca jiit boobaam léegi nga nekk ci kanam te jiite metti lool te ami jafe-jafe waaye lool lépp rek ngor ga woon ca sama juróom seen si Ahmadu Mbàkke ngay defal ak yitteel bu kon mbirum sëñ bi yitteeloon yitteel bu ko diine yitteeloon loolee rek moo nekk ci yow moo tax liggéey bii nga téye ko ba waaye li ci jiite mbooloo ah ñi ñu baree bare xam nañ ko ñu baree bare buñ ci doxee tuuti rek dañuy daal yokk dañuy daal di fexe ba génn ca yow nag boobaa léegi yaa ngi ci kanam mbooloo kon yow itam ñu ngi lay ñaanal kóolute ko ba nga sëñ bi jox yàlla na ko àggale fa kaw sa njort kawe njortam te mu ànd koog yow kon sëñ Abdou Khadir di yëkkati rek kàddu yi ak ngërëm ànd koog rakkam yi ak taalibe yi ak jigéen fi fi mën di ci cër bu am solo bii teraanga ji nga xam ne ci seen bu baax da ngeen koo yëkkati tere ko kàngam lu mag a mag lu jege Seexna Ahmadul Xadim radiyallahu anhu bokk ci ñi ko njëkk a topp di ko Cheikh Mahamadul Bachir Sëriñ Cheikh Mahamadul Bachir waxee foog naa ne ñu ñàkk ci exposé yi mi ngi ci mu wax ni min aqdami man tabaa Cheikhna sëñ Bello Assane bokk na ci ñi jëkk a a jëkk a topp sunu sëriñ bi moom sëñ Basiru mooy wax di Seexuna Ahmadul Xadim gën gaa bari mu tàmbulee ci benn ki njëkk di sëñ Adama Gueye kon ba ci fukkeel ab li sëñ Daaru Asan génnul ñoom ci biirum njëbbal ci biir loolu nag am na wax ni mooy ñeenteel am ñu wax ni mooy juróomeel am ñu wax ne mooy juróom-benneel loolu kenn ku ne ko xam histoire da nga xam ni histoire noonu la baaxoo boo demee ci histoire yonent bi histoire Cheikh na Ahmad Khadim ak histoire bu ne loolu da cay am ndax loo xam ni dañuy njëkk ba yàgg rek ñu ni nu mu demee woon ah ñuy laaj ñan jàpp ne xam nañ ca kenn ku ne di wax aka nattale noonu lay mën a demee waaye diisu mën a dogu dogg gu dog ci nii la demee waaye seen dala daal ñett yooyu moom weesu ko ñeenteel juróomeel juróom-benneel te loolu waxi Cheikh Mahamadul Bachir jëm ni bokk na ci ñu jëkka jëkka day daal di fedd bi loolu da koy dëgëral waaye mu ànd ak moom yu yàgg yàgg yi te mooy ni mu wax ne waa semence boobu waaye lay foo alal arbaayin kon ànd naag sëñ Touba lu mat ñeent fukki at loolu yëpp wax yi sëñ Basiiroo kon loolu yi mooy wane ni kooku yàgg naag sëñ bi loolu ndax ñeent fukki at moom lu baree bari la làq na ngërëmul sëñ bi loolu dikk na ci bay bi nga xam ne sëñ bee ko jëme ci moom dañuy wax sax dangay dégg lu bari naan ku sëñ bi woy déedéet sëñ bi man nga ne yonent bi lay woy woy moom mooy tagg ñi ci des day wax ngërëm lu leen gërëm ñaanal leen waaye loolu nag tagg da ngay dégg ne ña xamul naan sëñ Tuubaa ko mooy wala comme tagg déedéet jazaaka rabbuka fii daariya xasan xayran li jaahil rasil min nabihi xasan ak ñaan la فاعلم بأن راد عنك مطلب أن جاءك الفوز من مولاك والمكر loolu seeda la ci ngërëm lu dugg falaa tasal fitna wasu mu day la kay laa laa xeexa bi siyaar wal fitam loolu yëpp dénkaan la mu ngi kon loolu mooy wax yi Cheikh na Ahmad bi mu jëlee ko kon da koo sant gërëm ko wax ko ne it ko sàkkul suñu borom mu defal ko nam defaloon saxaaba yi ca ànd rek àndoon ak Rasulullah sallallahu ba làq ngërëmul yonent bi làq ngërëmul suñu borom ba suñu borom dig leen nam leen dig te mooy wa saabiquuna saabiquuna ulaa'ika al-muqarrabuun wa saabiquuna al-awwaluuna mina al-muhaajiriina ba fam jeexee te zaalika al-fawzul aziim loola rek da sëriñ bi wax ne dana ko fàttali sëñ Dóor sa ci suñu borom foofu lu ñu ñëw fee Seydina Ousmane ca saxaaba ya ndax ni ko sëriñ bi waxee moom dafay jëlaale jëm jawwala jëm def moom Seydina Ousmane sëriñ bi daa wax ni baata nabi yi ilaa fajj ni yëloo mu doxlu risdal minallahi sa tafdilu ku baalu kon loolee it moom la sëriñ bi wax ci sëñ Dóor Assane la yonent ba doon sàmm fàggul Seydina Usmaan ba mu defee jataaya ja moom la sëñ Tuubaa wax ne moom itam dana kon mooy loolu it mooy firndeel di dëgëral li ma wax ne da koo wax ne lam ci euh, saxaaba ya amoon ci Rasulullah laay sàkkul si suñu bool nga am kon sëñ Daaru Usmaan mi ngi noonu ci gàttal waaye nag mu teel fee jóge jiitu ñetti at sëñ sëñ bi waaye nag ak njabootam gannaaw sëriñ bi nag mu ne su tee wax lenn lu dul seen diggante ak Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu kon sëñ Darou ak sëñ Touba la ñu waaye ci njaboot dañuy daal ci Cheikh Mouhamadou te loola ka jiitu sëriñ Euh, Abdou Fatim Baalo mi nga xam ne moo mag ci doomi sëñ Darou Assane waaye sëñ Fallou Ndiaye nga xam ne moo sësoon ci moom lëkk te xilaafa sëñ Darou Assane ci mbooloo mi ak jiite liggéey bi moom féete woon ci moom loolay dafa doon ci mam yi la bokk sëñ Darou ko ci dëkkam bu mu doon sañ bu mu santoon ñu di ko wax Euh, daarul xadim ñu gën koo xam ci euh, euh, daaru Lambodel ndax dëkk bu ñu wax Lambodel bu fa nekkoon bu fa bu mu dendoon tax ñu di ko ca dàkkantel naan daaru bi Lambodel moo gën a siiw waaye sëñ bi daarul xadim da ko tudde woon sëñ daaru Asan nag daa dëloon foofu sëñ Abdou Fatim Baaba mu nekk fa moom loola tax na kon moom naka jekk dundam gépp foofu da ko féete ba fii mu nuy wax ak yéen dégguñu ci Touba gi kër sëñ Abdou Fati Ballo te kër yi doomi sëñ Darou Assane lu baree bari am na fi waaye kon kookoy dégg ndigal ak fonk ndigal moo tax mu ges foofee ca njaambur ci ndigalul way juróom sëñ Darou Assane ba tax na sax ci goxub Touba beeg li ko wër miinuñu ko fi waaye loola rek la su ko defee ñoom ña ca des nag sëñ Fallou njaay ba ca mag teel ñëw fii lool ànd ak Cheikh Mamadou Moustapha fekk boobu Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi ci liggéey bi nga xam ni moom la ko sëriñ bi bàyyee ngir taxawal yoon wi nos taalibe yi taxawal naal yi nga xam ni ak bëgg-bëgg naa Ahmadul Xadim yi nga xam ni moom la ko dénkoon te loola lu ci gën a fés di liggéeyu jumaa ji te loola booba ba tey sax muy liggéey bu rëy rëy ku ko tàmbali woon waaye booba la raw ndax booba kenn ku ne xam na ni xaalis bareewul nii mu baree soree naag baree sax nii mu baree te lépp booba xaalis a koy def ak xam-xam ak i pexe akum xel ak doole kon loola taxoon na Cheikh Modou Moustapha radiyallahu anhu soxla woon na bu baax a baax ku ko jàppale wala ñu ko jàppale ci liggéey boobu waaye kon it dañuy daal di yëg foofu ni Cheikh Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu ku amoon yaakaar ak kóolute ci njabootu sëñ Darou Assane la ba tax na mu teel leen a ñoddil boppam taf leen ci boppam jegeel leen boppam ah, fa tabarakallah def leen ñuy ay jëwriñ ci liggéey bi loolu lu wér la lu saxa sax la waaye nag sëñ Ousmane mii nag bi mu dikkee da koo gën a fedd li ndax daa digle woon santaane ni képp koo xam ne yilif na ëttub Cheikh Modou Moustapha bii te mooy ëtt bii mu doon ci sëñ Touba di kërug Daaru Xudoos gi na leen yilifaale loolu it ndigal la loo xam ne ci sëñ usmaan la jóge kon loola it kuy sant ci loolu ci taxawaay boobu war ngaa sant sëñ Ousmane ci loolu muy lu ama am solo mooy li ma wax rek kenn ku ne fa nga fekk jamono liggéey nga fa liggéey boobu nag mustadak sëñ mën jaay asan wóotu ko fi kasaalika ah, di jëwriñ def fi liggéeyu rëy rëy rëy ci diggante Taïf ak Touba bi mu fi jógee sëñ Abdourahman wóotu ko fi kasaalika mbir mi di dox ba ci sëñ Mbàkke ba ci sëñ Abdourazaq mi nga xam ni moo mujj a wóotu sëñ Daaru Asan ci ay doomam bi mu fi jógee moom itam sëñ Mbàkke Xawa wuutu ko fi di sët bi njëkk a wuutu sëñ Daaru Asan sëñ Seex Fasal Njaay tege ca sëñ Mbàkke Fatsi la sëñ Abdou Khadir mii fi ne yàlla nañ fi bokk yàgg te wér sëñ Ahmadou ak njaboot gépp njaboot sëñ Moustapha gépp bokk yàgg ci suñ kanam nu yàgg ci seen ginnaaw sëñ bi àggale ay mébétam ci sëñ bi ak lislaam nu bokk ko àggale kon sëñ Ousmane ñu ngi beesal rek cant yee ngërëm yi ci teraanga ji nga xam ne teg ngeen ko ci loxoy sëñ Abdou Khadir mi fi wutu sëñ Darou Assane te muy lu rëy a rëy di la am solo di la ñaanal liggéey bii la sëñ bi dénk yàlla na nga ko àggale fa ko sëñ bi bëggee ba mu kawe njortam ànd ak gudd fan ak wér suñ borom yokk na xiiwal yi bu baax a baax a baax gannaaw bokk na ci liy tax ñu gën a jekku liggéey bi yokk wér gi kon sëriñ bi di sëñ Moussa Jobbe jiite mbooloo mi ak rakkam yi mu àndal yépp ci Euh, euh, turu sëñ Abdul Xaadir waaye jaar ci sëñ Moussa Faati mi nga xam ne mooy jëwliñam te bëggoon a ñëw te am gàllankoor ñu ngi beesal ay cant ak i ngërëm di ñaan yàlla nañ yàgg taxawe taxawee bis bi te at mu jot rek yàlla nañ ni ren jii moo kawee daaw euh, te lépp rek di ngërëmul seen bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu euh, sëriñ Ibrahima ñu ngi yëkkati ay kàddu yi gàtt di kàddu cant di ko yóbbante sëriñ Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam ne tey mooy kilifa Daaru Ndiaye di ko jaarale ci sëñ Moustapha yi jëwriñam yooyu ko jaaree ci yéen ñi ñëpp di ñëbaw suñu daru asan kàddu yi cant ñoo xam ne sëriñ bi ci la soqi ko te it njëkkiwu ko tey bu fekkonte ne waa góor ju ne dana tax ngeen yëg seen bopp kon amaana buñ leen soxlaa da ngeen dital ndax yàgg ngeen ko dégg waaye waa góor du nekk jóge sëñ ba jëm si ci yéen daa mel ne day tax seen gulax saay dina dëgër mu mel na loolu ak cant gu mag la boo xam ne dana jóg ci sëriñ bi ñeel sunu borom mi nga xam ne mooy dogal waaye di ko sante Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo defar lépp waaye nag di ko sant Cheikh Moustapha mi nga xam ne mooy borom kër gi jaboote leen jaboote lu ñun ñëpp ndax dafa mel ne loolu dafa am cosaan lu yàgg cosaan li donte ne fekkewuñu ko ca taarix jàngal nu ko it seenu nekkin ak seenu doxin da ko dëgëral da ko firndeel bu wér ndax li nga xam ne moo taxoon sëriñ bee jóg muy lislaam ci feddal li taxawaayu lislaam ci jaami yàlla yi ci ak dëgër gu mat sëkk gu ànd ak pasteef waaye ci ak jaamu yàlla gu gu mat waaye ci nangoo liggéey di dunde sew ñaq di ci liggéeyal yàlla loola moom la jiwoon ca mag ña defar leen ci ba ñu am li ñu am tey waaye dafa mel ne yéen li leen ci yàlla cërale sàgganewu leen ko ndax noppal ngeen sëñ bi lool ci ay aaye waaye noppal ngeen ko lool ci ndigal ndax kilifa amut lu digle ñu jëf aaye ñu bàyyi te mësi leen aaye dara li leen war a aaye yépp xamal ngeen ko seen bopp kenn du leen ci loolu kon dafay mel na noppal ngeen sëriñ bi noppal ngeen ñoon sëñ bi li ci am nag mooy lii ñu def tey dafa am bis bu rëy bu ñu bokk ñun ñëpp lislaam bépp bokk waaye ñun ñu moom ko moomal ko sunu bopp téyel ko sunu bopp ñu koy séentu muy bis bu fulawu lool ci ñun waaye di bisu bisu fàttaliku fees dell nag ci ay fàttaliku mu mel ne fàttaliku yooyu nu ne mënees ko ni ne waxe waaye fàttaliku la yoo xam ne dañ koy wutal bis wutal ko saa wutal ko barab ngir ñë jópp man cee àndandoo ngir yërmande suñu borom ñi gën a yokk waaye fàttaliku la yoo xam ne kenn ku nekk ci ñu ko wax fàttaliku njariñ la ci yow ci saa su ne pour jóg samxel sam xel muy dikku sëriñ bi Touba sëriñ boobu nga xam ne moo waral lépp defar ñii ñuy fàttaliku tey mu muy coloré goo xam ne ci moom la soxla ko woon ba tasaaroo tey ci ñun ñëpp ca ñooñu ñi góor yàlla yooyu yëpp kenn ku nekk ci ñun war ko am am war a am cër ci sa xol nga war koy bàyyi xel euh, li ñuy bari bari ak li ñuy màgg màgg kenn di ci jiitul sëriñ Darou Assane ci fii ci barab bi sëriñ bi léegi wax nga ko moo wax ne sëriñ Darou Assane ngeen koy tuddee mun a mun a jox ngeen leen lu ñu moom kon yéen ñoo yéen dañ cee bokk yàlla fii ñu toog di def lii manoon ngeen fee ñëw toog di ko fi def kon ñoo ci bokk yàlla kon lii bu ñu ko defee defalul leen ko sunu bopp lañ ko defal daaru xudóos lañ ko defal yoonu murit lañ ko defal sëriñ Muntaxa lañ ko defal ndax noonu la toll ah mu mel ne nag ñii tey di leen xool jëm yi nga xam ne kenn ku ci ne tey wuute na fi sëriñ Darou am na ci ñoo xam ne xëy na xam naa leen ci nataal waaye musuma jokkalante ñoom la waaye kenn ku ci ne am na lu ma dégg ci yow am na lu ma jàpp ci yow ci kenn ku ci ne dangay ngay jàpp ne moo bokk ci nit ñi ka njëkk a wuutu Serigne Darou ndax ak jege gu mu ko jege ci jëf ak pas-pas loola lu ñu xam la di leen wax nag rek di leen waxaat rek ne waaw góor ndax tey diwaan bi nga xam ne tey mooy taxawal lii ci ndigalu sëriñ Ahmadou Makhtar bañ ko taxawale ci ndigalam ak léegi mu di ci wax lim ciy wax di ci soññi ni ngeen ci doon doxee ak mu jot day yokk waaye mu bi dina loola kon mooy li may wax ne léegi bu leen waa góor doon tax a yëg seen bopp kon buñ ne leen jógal da ngeen dégg ndax yàgg ngeen koo dégg waaye nag yàlla yàgg ñu ñaan sunu borom kilifa yi nga xam ne tey ñoo fi nekk ñëpp jiite mbooloom yàlla dëgëral leen ca sag bi fi ne ak bennoo bi nga xam ne moom nit ñi di gis ci muy sutura su sëkk ci ku soxla woon yàlla ko yàlla dëgëral ci sax yàlla yi na noonu nanu dolli dimbali ñun ñëpp nag yam ndigal ndax loolu mut yëpp laa ko boole ndigal yàlla yàlla dimbali ba fu mu jóge mu def ci suñu xol yi ak genn nattable ban ci am yàlla yàlla dimbali ba bu ndigal jógee nu mu toll nanu fekk nu doolee nu doolee nu nu ko nu ko man bañ mën ko jekk nañ ko war a jekk cam yàgg lool sëriñ bi nangul lépp. ñu ngi sant ñëpp sant bokki taalibe yëpp salaamaaleykum wa